Mali c'était le président du jury et il a gagné le xeex si biiru à Kasanga au Mali il est allé jusqu'en finale jusqu'en finale avec la Guinéenne il a fait plusieurs tournées il a fait combien de singles et combien d'albums dans un contexte où intérieurement on ne peut pas dire que la musique nourrit son homme alors que les artistes ont besoin de vivre dignement de leur talent Mais les contingences aujourd'hui font qu'il y a beaucoup de problèmes liés à l'évolution des artistes. On ne peut pas parler de contrefaçon, de piraterie. Pourquoi Parce qu'il y a ce qu'on appelle la technologie ou la vente en ligne qui compense cela. Il y a le problème des spectacles. Mais l'artiste investit beaucoup plus pour être présent, beaucoup plus pour ses artistes que pour gagner de l'argent. Si ce n'est pas pour aller faire des tournées ou bien ce qu'on gagne dans euh, euh dans, dans, les plateformes. Donc c'est pourquoi il est important aujourd'hui de mettre l'accent sur l'événement que font les artistes, non seulement pour faire plaisir à leur public, mais aussi pour survivre, pour ne pas dire vivre, pour survivre. Donc, euh, si je devrais continuer mes témoignages je dirais que ça maa ngi koy bind ci sama poste voilà un garçon qui est extrêmement fidèle fidèle euh, en tout parce qu'il n'est pas le seul artiste que j'ai accompagné à un moment donné dans la vie il y en eu plusieurs mais tey li muy def néew na ci ñoo xamante ni ñu ngi koy def ak man ba nëgëri par présent c'est pourquoi je dis que en dehors du talent parce qu'il a fait ses preuves il a fait ses preuves. On ne peut pas nier aujourd'hui que Demba Guissé occupe une place de choix dans le paysage musical. Il a ce respect culturel qui font partie de ses origines, qu'il voue presque à tous ses devanciers, à tous ses anciens. Il le dit souvent, Baba Mal c'est mon père, Gisepen c'est mon père, Faloudien c'est etc. Il le dit tout souvent. On ne l'entend pas aussi dans, dans des bruits. Donc c'est extrêmement important. Motar, je me plairai toujours à parler de lui et qu'il y beaucoup de questions liées à cette soirée, cette fameuse soirée du, du, du CEP. Que, et j'en je, je, profite pour faire un appel à, euh, à tous pour que ñu mën a delloo buum ci mbooy mbooy gi comme ni mu koy defee chaque année di ko feesal ba mu fees dell parce que ku fa ñëw di nga fa gis sañse di nga fa dégg musique bu neex di nga fa dégg woy yu neex di nga fa gis ay talent te di nga fa euh, di di nga bëggee daal comme on dit donc en guise euh, d'introduction par rapport ak euh, Demba c'est ce que j'avais à dire et j'espère que Tafa je te retourne la parole pour voir qui suivra et comme ça ñu teel jox presse bi aussi ñoom it ñu poser seen question comme ça ñu mën a libérer teel a libéré wu. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu fi teew di leen. gërëm aussi seen déplacement bi ku ne xam na ni yombul waaye ñëpp seen liggéey lañu nekk peut-être sax moo tax ñu bëri déplacé wu euh, ndaxte euh, jafe na ci sax euh, moment yiñ toll ni mu xat lool programme yi bari lool am na sax peut être ñu ñu woowoon waaye peut être ñëpp mun ñoo ñëw waaye vraiment def ngeen seen kémt lay kattan ak seen jot déplacé wu ñu ma leen ci remercier donc di gërëm aussi ñi nga xamante ni ñoo may accompagner tout le temps Euh, ma père gisee pen moom moom wax na lépp ah donc Pendo aussi ku ne xam na ni euh, fu ma nekk mu ngi à côté donc di gërëm aussi euh, Tafa bi ak le grand manager ma yoro mu ngi toog xaw mu ngi egg si léegi léegi. donc ma koy gërëm di di leen nuyu yéen ñëpp ah, na leen vraiment li ñu tax a ñëw tey mën naa ni les quatre-vingt-quinze pour cent mu ngi jëm ci bon ki événement bi nga xam moom la ñu jub ak yooyu quoi peut-être nag mënut a ñàkk sa waaye sànq mu ngi. mu ngi wax ci côté yeneen question yi waaye xam naa ne mënut a ñàkk ndax Penda moom xam naa ñëpp nga doon xaar aussi <laughs> xam nga comme mag dañoo xaw a wuute tuuti xam nga te lu si bari ñu ngi noonu si internet bi xam nga te xam na ni lépp aussi ay ruube la donc <laughs> mais quand même <laughs> leen di siyaar daal ah, maa ngi leen nuyu yéen ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di nuyu grand Guissé ah, di nuyu Tafa di nuyu ñi fi nekk ñëpp ah, di nuyu yéen ñëpp presse bi maa ngi leen di nuyu yéen wax na leen tey dara taxuñoo jug lu dul ah, le set incha allah du dëgg ngeen gunge ñu ci yéen presse bi yéen ay bind nit ñay gis sénégalais lambda yi yéen la ñuy déglu kon loo ñu mën a bind na doon lu rafet bu kenn teel a ñëw bindal ñu saal bu vide ndax fees na ba pare teel leen a ñëw yéen te bindal ñu lu baax rek maa ngi leen di xaar nag man dawuma dara wax dëgg yàlla donc comme yooyu wax na li ñu bëggoon wax donc pour ne pas ñu gën a tëyu yi je pense que on va vous la parole ah mais ñi toog si ginnaaw bu dee am na ñoo xam ne bëgg nañu gis fi am na ay chef mu ngi ñëw toogee nii comme ça tout le monde peut voir et poser les questions pour ñi nga xam ne yoruñu caméra nekk si ginnaaw am place côté yi comme ça mën nañ toog maintenant on va on la parole ah pour nekk question yi nga xam ne mën nga ko mën a bind gars yi lenn kese lañ lañ fay nekk di coow salle bi fees na gis ngeen ni ma ko def gis ngeen ni ma ko def parce que yéen a ngi léegi léegi ci démb gisee ci diversité musique am dafay def tey jii nii musique traditionnelle dafay def tey jii nii style de musique yu bari tey jii nag lan lañ mën a xaar tey jii ci démb gisee ci le jour J tey mu mun ko bëggal ñi nga xam ne tey ñoom ñaar ay fansam yuy ñëw parce que képp koo xam tey mi ngi ñëw tey jii nii foog mu mun a am boo xam ne ni tey dina ko a xaar loolu noonu ma nekkoon suma première question ci ci ci loolu ci Demba Guissé deuxième question moom mooy tey jii nii Demba Guissé ñëpp gis nañu que tey Demba Guissé latewu Demba Guissé nekkul képp ko xew rek mu jóg dem ci tey est-ce que Demba Guissé moom ak génération wala tey jii moom ak ay rakk tey déggoon na ñoom ci événement bi est-ce que invité na ay artistes yoo xam ne tey jii ñoo bokk génération ak ñi mu bokkulul génération ci bis bi ñu mën a xaar ay duo yu explosif loolu moo nekkoon ñaari question yi nga xam ne ñu amoon naa ko pour Demba Guissé ah Euh, question bu njëkk bi mooy comme euh, euh, lan lañ fa nar a xaar ci spectacle ah wala wala loo xam ne peut-être ni que bariwul lu ñu koy def bon man tout le temps dañ may wax ni dama bëgg ay ay culture dama bëgg ak yooyu mënta ñàkk parce que li nga nekk mënuloo see ñàkk def surtout nag bu nekkee peut-être ni que askan wala xeet boo xam ne bari na ci culture lu ñu ci def donc mënta ñàkk li may wax rek mooy liñ naan surprise doo ko wax mais quand même dinaa indi loo xamante ni peut-être yaakaaruñ ko woon ci programme bi le set incha allah bi ci côté spectacle wala ci côté euh, entrée ak ak yu mel noonu mais loolu xam naa dama fay dama ko fay teg rek xam ba ce jour bi incha allah peut-être di gis leneen loo xamante ni dina dina am différence par rapport ak li ñu doon gis. donc beneen affaire bi nga wax aussi euh, artiste d'habitude dañuy faral di wax ku ñu invité nga ne invité naa ñëpp damay wax aussi invité ñëpp te mënta ñàkk nga am ñoo invité parce que boo seetloo euh, li ci ëpp dañ naan. intéressé bi wala wala ki gën a nekk l'essentiel mooy ki xewle donc chaque année damay invité artiste sangam artiste sangam artiste sangam donc ñi ma invité euh, artistes yu ñu xam la ki si njëkk mooy Baaba Maal ñeneen ñi nag duma leen cité waaye jot naa déggante ak ñoom parce que aussi euh, mënuloo def événement nga woo Sénégal yépp quoi mais boo seetloo ni su ma invité ñii daaw Euh, déwén dina am euh, ren dina am ñu ma ci dolli ak yooyu mënta ñàkk quoi mais quand même du ma mën a citer artistes yi ma invité yëpp mais quand même ki si njëkk Baaba Maal dina déplacé wu ñëw tout le temps parce que moom moom bisam la xam naa ne loolu dina ko def incha allah rabbi. benn question pour staff bi léegi staff bi aussi est-ce que jël nañ disposition yoo xam ne ni tey jii ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ñëw bëgg bokk bis bi ak ki nga xam ne ni moom mooy Demba a pour ñëw gis nañ tey li nga xam gis nañ li nga xam ne ni Sorano yi nga xam moo weesu tey balaa heure bi heure bi di jeex sax gars yi dañuy wàcce yi dañuy war a ñëw leen seen jeex na génn leen loolu nag li ngay indi moom mooy tey artistes yi yu war a ñëw est-ce que staff bi jël na ay dispositif yoo xam ne ni tey dina mën a organiser loolu ba nga xam ne bu si ñëw di nga am nombre de temps bi nga war a def après dañ ko a bëggalante ak ay fansam bref bi aussi lu doon xaar ñu gis ko si question bi moom xam naa du man maa ko war répondre ah patron bi ko war répondre bi ñu ne la toog muy euh, Mayoro mhm. euh, ñi ko gën a xam ñi ngi ko xam ci côté Baaba Maal mhm. mu nekk waajoo xam ne yàgg na ak moom te naanaa ñu mel ni ñooñu ku yàgg ak ñoom rek c'est parce que tu es un mhm. dëgg moo ci nekk man dinaa la boo xam ne man jëlee connu bi mu nekkee ak Ablaye mu nekk comme ni ma ko waxee temps rek ma ne ko danga ma frappé parce que à chaque fois que l'artiste avait besoin de man ci laa ko jàppee ba léegi donc aujourd'hui bu ma waxee li may wax man dama koy wax ci turam parce que je sais que c'est un professionnel tey ñun ñëpp ñoo am difficulté ñun ñëpp Sénégal ñoo am difficulté pour gérer suñu timing auprès des salles mais du parce que dañu cuune am na ñoo xam ne li ñuy def xam nañ ko mais mënoo invité artiste artiste moom war a xam ne ay moroomu artiste am dañu war a ñëw ba pare artiste boobu nekk ci kaw scène bi nga mën ko wàccee mënul nekk dañu parce que répétition bu koy def ñi mu invité ñëw kenn ku nekk xam na ba morceau nga war a joué ñaata temps nga war a joué si morceau bi dañu wax ne dëgg ñi nga xam ni ñoom ñooy nekk ay problème te du problème sax c'est juste que am na ñoo xam ne tey te am nañ yëg-yëgu ñëw may ko doole ci événement tey mhm. am tey ñëpp milieu bi ñun ñii sax da ngay gis kenn di def seen parce que xam nañ manager bi wala xam nañ artiste bi ñu déplacé wu ñëw fa ci événement bi fekk boole bu ñu woon sax ci liggéey bi ñu dem liggéey si mais li ma li gëm mooy ñun ñëpp war nañ mën a xam ne affaire bi temps la temps de spectacle la kenn ku nekk may sa moroom boo duggee def li ngay def wàcc dem loolu moom ñi ñu invité laa koy ñaan d'abord parce que ñun ñëpp on sa respecte assez pour que defe naa kenn sañul fekk kenn si kaw seen di ko wax ne wàccal sa moroom day ñëw mais ku nekk tey bu amee bàyyi xel na am na keneen ko war a yéeg moom mu ñëw def li muy def ba pare barkeelu ñaanal artiste bi wàcc dem keneen ñëwaat je pense qu'on peut temps de spectacle ba pare mu jeex dispositif yi ñu war a jël ah, pour organiser ça on l'a pris mais nit ñi rek ñooñu ci mën a jàppale artistes yi ñooñu ci mën a jàppale. beneen bi aussi auprès peut-être de l'artiste tey événement bi boo demee tey ñun ñëpp li ci am solo wax nga ko mooy spectacle bi muy tant que le spectacle est là te mu leer ne ko moom def na spectacle am le plus important c'est pas ne 10 morceaux la prévoir 18 laa way mais am na mën nga ci def 4 wala cinq morceaux mu leer ne tu as fait un spectacle loo xam ne tey neex mais temps bi bu jotee donc xam ne def nañ la si temps soxlawul ngay xaar ba ñuy tëj liggéey sa kaw parce que amu ci njëriñ parce que loolu lañ fay bàyyi alors que mun nga quitter la scène fekk xam ne yow mi li nga war a def def ko ko après ñu doog wàccee bi sa ginnaaw yooyu ay précaution la yoo xam ne dinañ ko jël ak euh, organisation bi mais je pense que ñi ñu gën a mën a jàppale ci temps bi te waxuma ko rek pour maanaam ah, pour ñu ñuy organiser les grandes scènes yëpp c'est les invités de se dire que ok seen droit la de fekkee li artiste bi mais kenn ku nekk na xam ne sa moroomu artiste mi ngi si mi ngi si mi ngi si coulisse yi et que yow da war a yéeg moom tamit bu batteel loolu rek moo ciy réponse bi en tout temps espérant que sauf ci yokk lenn euh, par rapport au timing je crois que il faut que aussi ñuy ñaax public bi parce que seen responsabilité la fu mel ni grand théâtre les gens dañuy ñaxtu toujours ci affaire u tëjriloo mais nag on oublie souvent que suñu la joxee grand théâtre kenn jox la ko pour benn jour trois jours nga ko mu ngi sa disposition trois jours de charge la la veille dangay ñëw installer sa matériel def say répétition et cetera le jour du spectacle ak le jour de la levée mooy troisième jour et chaque jour dafay am ce qu'on appelle une charge totale de disposition en électricité en en, en ressources humaines et cetera ñoo xamante ñoo fay nekk si on te donne maintenant ton spectacle Qu'on a à 2 heures du matin, tu dois arrêter. Mais de 21h à 2 heures du matin, ça fait 5 heures de temps. Mais c'est public qui tarde. Donc, le ñoom il indi loolu par rapport à l'artiste. Mais je crois que de 21h à 2h du matin, l'outil défoule 5 heures de temps. Man gisuma benn dëkk comme defee a fait spectacle 5 heures de temps. Donc, il faut que nous ñap aussi public bi télé ñëw waaye sénégalais du kenn du bëgg jitu na damay xaar ni nangam nangam extra bala nga fa ñew 1h du bi def deux morceaux ñu te vidéo yi c'est c'est légitime pourquoi parce que aussi c'est le règlement c'est un contrat que tu signes on te dit à 2 heures du matin il faut que tu arrêtes à 2 heures du matin su jotee nit ñi aussi dañuy liggéeyi donc ñaax leen public bi pour ñuy teel ñëw artiste bi gérer timam euh, timingam timing bi comme ça au moins ngeen am spectacle spectacle moom mënul ñàkk ci benn événement parce que l'artiste a une façon d'entrer l'artiste a une façon de de de décor qui se kooku moom forcément il faut que spectacle am et toujours il faut rénover et je crois que euh, dans son originalité ba est en train de préparer quelque chose de spécial waaw. waaw. yéen ñaar gis <laughs> nañu ne ngeen def vidéo boo xam ni instant bii ñu les réseaux sociaux et tout ngeen war ngeen war ko ñëw jouer live léegi le jour J ban type de spectacle la gars yi mën xaar parce que. thème la li ngeen joué li ñaanoo loolu thème la te tey ñëw taxaw joué ko live noonu rek je pense que dafay doon lu yomb kon tey gars lan lañ mën a xaar tey ci ginnaaw ak démo tey ñan la ciy liggéey parce que tey artiste bi dina war am groupe de danse boo xam ni tey si ginnaawam ànd ak moom si liggéeyam moom. ba tey yooyu yëpp surprise la rek parce que <laughs> aussi su ma ko waxee fii donc je pense que du amati chance quoi comme spectacle la ñu wax ay ay surprise la ñu la ñu la ñu la ñu promettre nit ñi. donc moom xam na man xam naa te donc leneen lay nekk incha allah est ce que sax dinañu jouer loolu xam nga aussi yaa ngi naan est ce que dinañ ko jouer mën nañu ko bañ sax mën nañu ko bañ jouer mën nañu génne feneen donc lépp surprise la rek. waaw ah, loolu surprise la dañ leen di xaar rek du dëgg dañuy ñaan yàlla rek comme li euh, tonton Guissé wax léegi laay wax des fois ñuy tëj rideau ci nit du sakk mais tam pour ñu xam ni du waxuma euh, du grand théâtre kese sax mais boo demee Europe ñaata nga gis artiste yi wala ñu fay lamp yi loolu man fekkee naa kon public bi. Mhm. ak public bi nekk Europe peut-être duñu benn mais sénégalais dañu ñoo war a bàyyi bu ñu leen joxee euh, heure. Mhm. vingt heures wala vingt une ñoom ñu bëgg ñëw vingt deux heures wala vingt trois heures parce que artiste bi dafay fay lu cher. donc nga teel a ñëw. ñu teel a ñëw parce que xat-xatu dëkk bi tam da nga ko ci calculer waale embouteillage bi donc nit yi nga xam ne ñooy ñëw di seetaan artiste bi day neex artiste buy dugg si mu fekk la fa. parce que booy dem soirée boo fekkee ñaari morceau yow demal ñibbi parce que dafa ne ñuy ñaan public bi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ñu teel a ñëw. boo teelee ñëw di fa fekk leneen parce que bu nit ñi teelee ñëw rek affaire bi dina gudd te nit ñi dinañ wax yépp lu ñu bëgg a wax ci nit ñi la na make-up bi gaaw rosa bi gaaw defar bopp yi gaaw ngeen teel a ñëw rek ba lu ñëwee di ngeen fa fekk leneen ak leneen ndax man mën ngeen maa gis ci yeneen i facette foo leen xalaatul mën nañ faa génn parce que suñu yaay sax suñu ne nii tubaarkàlla kenn mës ko gis mais di ngeen ko gis bu boobaa ah maa ngi nuyu Demba Guissé Pendo ak tonton Guissé Moustapha euh, Demba man nag sama première question day jëm ci euh, Demba Guissé pourquoi 4 ans successifs déjà 2016 la tàmbali Sorano su ma juumul 2017 mu def 2018 la tëbal 2019 def na mais depuis boobu boo defee dafay am succès Sorano toujours Sorano ba léegi gisaguñu Demba song grand théâtre te bu mel ni artistes yi nga xamante ne bii sax yow. yàlla yóbbu carrière yàlla yóbbu niveau ñu ngi songu grand théâtre pourquoi Demba misé wu toujours ci Sorano est-ce que Demba dafay continuer pour tout ça bi wala carrière am ñëpp di jouer Sorano loolu aussi bëggoon naa leen si ay leeral beneen bi mooy pourquoi Demba gisee moom dafay def autoproduction déjà gis nañu la amul label booy liggéey say moyen ko wala say moyen nit ngay génne pour def li nga war a def yëpp pourquoi def boobu label yi ñu ngi contacté Demba Demba moom bëggul liggéey ak label wala da nga bëgg rek di nekk ak say mbokk beneen bi aussi dinaa si ñëw mooy sa diggante ak Baba Maal bon am na lu ci am ñu bëri xamuñu ko bëggoon naa aussi nga leeralal ci ñi nga xamante ne bii tey nga ñu toog ñu seetaan sa diggante ak Baba Maal lan moo leen liggéey d' accord euh, première question bi euh, euh, première question bi ban la ban la Sorano ok tout le temps Sorano bon boobu répondre naa ko répondre naa ko répondre naa ko dinaa ko waxaat aussi que mu leer que mooy bi may dem Sorano dew ma woon pour mu fees wala ak yooyu quoi titre bi ma soxla woon mooy man ma bokk ci histoire Sorano bi nga xamante ni que ndaanaan li nga xamante ni Père Guissé Pène jaar euh, lim na lim na ni jaar na fa toujours ma ne euh, Sorano am na chance bu grand théâtre amul ndax ndaanaan ñi fa jot a jaar tey lu su mel ne ñoom ay suñuy papa euh, ki Ablaye Mbu papa Ndiaga ak ñooñu ak ndaanaan yoo xam ne aussi. ay international ay dégg ay Clinton euh, ok ba ma demee kër di laajte renseignement bañ bañ may wax ay ay euh, Jackson Five famille Michael Jackson e, e, expliqué yoo xamante ni que mosuma ko woon xalaat donc tey titre ba ma soxla woon mooy. comme que soraanoo bi ko fi Léopold Sédar euh, Senghor defee ba tey donc am na chance ndaanaan yu mag yu kenn xamul woon tax man fekkee uma seen génération jaar nañ fa ma ne man pourquoi pas man ma bokk si ñu jaar foofu ba ëllëg tey lu ñu def tey ci Sorano mbaa tey bu bu livre bi génnoon tey sama tur nekk ci biir xëy na chance boobu nag grand être amul loolu wax benn ñaareel chose bi ma ko defee yàlla dogal euh, première année ñi defal ma dem Demba gise à réussi son pari à Sorano deuxième année ma defaat ko troisième année ma defaat ko ba quatrième tey ma bëgg ko defaat tey donc nekk man ko koy wax toujours que nekkuma si tendance su fees naam feesul parce que man xam naa ne Sorano bii ni nii ni nii déjà bii jeex na donc werante wu ma ba xam dina fees ak dina dina fees damay léegi xool ci côté euh, spectacle ak yu mel noonu quoi donc li ma fa yóbbu woon nag du parce que wax naa ko keroog nee naa tey déwén sax su ma neexee ma dem CICES wala sax ma dem Grand Théâtre mën a nekk ah. su ma neexee tamit ma dem yëngu leen donc amatuma lu muy prouver biir Sorano pour que dama koy tëgg wala dama war a changer quoi maa ngi wax sax keroog benn si internet ma ne ko nag léegi nag xam nga pour léegi nag ñu bañ ma laaj boobu question xëy na déwén nag ma dem grand théâtre xam nga mais quand même du woon dara quoi dama doon xool ni rek bon euh, euh, foofu euh, même sama côté fay bi may fay xëy na Sorano mu gën a oyof ci man lépp mu ngi ci. ñi ñi ngay wax na comme ci xale yi sax peut être ñi maanaam jiitu ci musique ak yooyu ak yooyu dépendrul foofu ndax nit nekk na fii ba am âge am ba retraité te musul jaar Sorano nit nekk na fi di soog a egg si tey salaamaaleykum mu dem Sorano donc yàlla mooy tëralee noonu ay dégg mais dépendrul ci kii gi parce que mën nga am talent te fekk mënoo feesal sax yëngu leen mën nga ñàkk am talent sax nga feesal Sorano sax nga si nga feesal sax euh, euh, euh, esplanade bu Grand Théâtre dépendrul foofu mais man kam li ma fa woon titre bi la donc saa su ma fa demee mosuma am ak ñoom bor mosuma fa am benn problème donc lépp fay naa ko comme ni ko père gisee Pène waxee donc loolu moo tax ma fay delluwaat te nag li wolof di wax ni li nga jàppoon ba mel ni bu ko bàyyet moo tax bàyyiwu ma ko <laughs> ok je pense que c'est pas très important. Mm. ay il faut pas il faut pas que ñoom ils se dans la tête que c'est une concurrence de tel mot dur sa man je dis tout chaque jour à la jeune génération que le marché c'est pas aussi il faut que ñu arrêter de concurrencer wu entre ñun. aujourd'hui chaque année ñu recevoir ay jeunes yoo xam ne seen propre âge rek ñoom ñooy ñëw di def fii ñoom du ñu joué grand théâtre bu ñu ñëwee esplanade yi la ñu di jox ak stade important. c'est qu'aujourd'hui, il a un plan de carrière pour nous développer. Aujourd'hui, c'est rare d'Embo Guissé, autant d'années, il est toujours la C'est ça, je pense, que le, le, le, plus, le, plus, grand défi. Donc, Taï, mon mini de l'OL, le fait de jouer au Grand Théâtre le Sorano, ben spécifique là, aujourd'hui, il est capable de mobiliser. Comme Grand il n'y a pas une grande différence entre le Grand Théâtre. Le seul truc, c'est l'immensité au bâtiment appelé Abbali Lubert. C'est ce que je veux mais bu doon nañu ko defar mu nekk 3000 places ki ki joué 3000 places ak ki joué 1500 places du benn ça pourrait être un défi spécial quoi mais je pense qu'aujourd'hui ñoom ñaar ay différence su 500 doguma la sax euh, Tafa parce que Père Guissé Pène du euh, dina seede loolu parce que man en 2000 euh, en 2010 bi ma demee représenter Sénégal saal yi ma doon joué ma nga doon def je pense 3000 ou 4000 personnes. ok je que video yi boo duggee tappe tappe dem ba gis a ko doo gis da nga gis ne nit ñoo xamante ne ñooñu tey ñu xajuñu grand théâtre dégg te pourtant mën naa ne majeure partie bi yëpp man maa leen indiwoon parce que nag xëy na Sénégal sax waaye Mali moom wax dëgg meloon naa fa noo xamante ni que euh, loolu loolu loolu dafa doy waarul xëy na nag boobu temps en 2010 site internet yi bariwul donc trop ba ñu mën a bindal ay affaire demoon na sax ba ñu kaas ni pourquoi euh, euh, Demba Guissé ak euh, concours bi mu def yëpp ak ñi mu jote éliminé yëpp ci ci ci ci ci bi mu demee représenté Sénégal pourquoi gars yi affaire ñu woon loolu mais xëy na deux mille 2010 ak léegi je pense que def na 10 ans xëy na boobu site internet yu bari feeñu noonu waaye tey tey la ñu am chance tey bu site internet yu bari tey xëy na bu doon tey la tey visibilité dina gën a génn quoi ok parce que beneen question bi mooy mooy mooy ok label xam nga label moom dépendre foofu nit nekk na ci label sax te bu te te te bu wootee fii nit ñi duñ ñëw yaa ngi dégg donc du ma décortiquer yu bëri ba yaa ngi dégg dépendre ci loolu bëri na fi artistes yoo xam mosuñ jaar ci label ah du ma citer artiste mais xam nga leen nekkuñ ci benn labelu kenn donc ñu ngi toj Sénégal donc dépendre loolu label nag c'est très important ci artiste ah. moo xam label Sénégal moo xam label Angleterre wala États-Unis wala fu mu mën a nekk quoi mais quand même euh, waxtaan jot naa am peut-être ñu ma jotoon waxtaan ak yu mel noonu quoi mais quand même fekkee ne que maa ngi gis sama bopp ba fi ma nekk nii pour man label bu ñëwee tamit du ma ko bañ ça dépend rek ci waxtaan bi bu ñëwee bu ma arrangé arrangé sama staff ak suñuy manager ak ñu may liggéeyal ñu liggéey fekkee arrangé wu ñu dem parce que nag euh, maa ngi sant yàlla. <laughs> Demba da nga généreux rek c'est-à-dire des gens yoo xam ne ils sont là leur catalogue d'artistes xamante ni ñooñu dong lay liggéeyal point final c'est pas c'est pas ça un label. label c'est un contenu label c'est autre chose et même pour revenir à la question de Tafa vous connaissez Bercy c'est un exploit de remplir Bercy mais c'est un challenge de faire le Bataclan alors qu'il est tout petit Youssou Ndour dernier spectacle am en France c'était à Bataclan ça c'était le challenge et c'est ça Sorano par rapport au Mm-hmm. Fatou Sadd benn question bi. sa diggante ak Baaba Maal. Baaba Maal moom waxoon naa ko waxaat ko Baaba Maal c'est entre per et fis Baaba Maal su ma su ma su ma diggante diggante moom ak sama papa moo jiitu d'abord. Euh, man dama ko yéex a xam peut-être ma duggee ci musique laa ko xam mais Baaba Maal sama papa ak moom la woon ak ñoom mbas ñoom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. je pense que loolu dégg nañ ko plusieurs fois Baaba Maal taxaw ma taxaw mu wax. moom bi mu ñëwee aussi keroot sama kër bi mu seet si turandoom aussi la même chose muy waxaat jaar-jaaram ak ñoom sama ñoom papa ak sama ñoom papa maabel gise ak yu mel noonu noonu donc tey euh, kóllëre boobu moo continuer tey ba ma ñëw tey ba tuddee ko sama doom ama mu nag jox ma aussi benn benn benn considération parce que am na émission bu ma def dama fàtte woon réponse ma ko waroon tontu question bi ñu invité ba nit na ma lan nga defal baabu ma ma ne ko respect ak considération bi mu ma jox rek bi li ma li ma li ma jox rek loolu rek doy na quoi donc te loolu laa am ci moom tey papa la ak doom du affaire du affaire do ay ay no ay ay ay nawle ak yooyu Baaba Maal su ma koy xool dama koy xool comme sama papa ma jur bu def ma aussi comme tey bu 1000 personnes nekkoon nii daf may joxoñ ne Demba Guissé ngi nii taxaw donc loolu c'est important parce que ak niveau aussi vraiment mu mu considère mu jox ma considération boobu noonu loolu rek doy na quoi papa la ak doom mais Demba Ba moom mais ku euh, wax papa ak doom nga xam ne am papa ñu gis ñu géej seen loxo di leen jàppale. Mhm. boobu que mhm. Baba Maal mi directement est-ce bi yow yaa ngi ci mën a parce que am na yeneen yoo waxoon bi ma waxoon nii ma waxaat keroog mhm. sama tournée bi je pense jot nga bi ma jot a def nii daaw demoon cinq pays yoo xamante ni ngi woon ay Suède ay Lyon Mantes-la-Jolie euh, Bruxelles euh, Paris ak yooyu yëpp Baba Maal moo ma yóbbu. ma li liggéey euh, moo ma invité jëlee ma fi Sénégal yóbbu ma TRAP euh, France fi ñuy wax TRAP. Mhm. ma participer ci programme boobu. promoteur bu ma gis tey ba ñame ma engagé tey foofu la ma gisee te Baaba Maal moo sabab loolu bi may dem encore di dem euh, tournée bi dëkk bu ma dem Baaba Maal am na fa ay nit contact ku nekk mu wala aloo kër génn leen accompagner ma def leen dem ba gisee comme man may ñëw moo tax boo ñëwee tey Mantes la Jolie dafay mel ni Baaba Maal lay ndax nit ñi duñu day fees ba duñu mën a dugg loolu sant yàlla la je pense que jàppale weesiwul tey nit laaj la sa passeport mu ñëw mën a la kaay gunge ma ñu ànd dem France dem defi ci artiste bu nekk nag yaa ngi am rêve nag ànd ak ku toll ni Baaba Maal tey mu yóbbu la ngay accompagner ngay joué ak moom devant public bu toll noonu loolu rek laa ciy wax leneen sax du ma ko détaillé ak yeneen yoo xamante ne xam nga ba ci sonorisation bii nga xamante ni chaque année maa koy def di fay xaalis bu bare bare bëri Baaba Maal moo koy jël indil ma ko boole ci enveloppe ba noppi boole ma ak estafam ñu koy liggéey ñëpp ne leen dem leen accompagner dem ba gisee su ma ko waxee date programme bu jël date tant que le sept passé wul que moom mu soog a engagé beneen date ci problème euh, ci ci programme boobu je pense que loolu doy na jàppal te des na yeneen ko yii rek laa laa ci mën a leeral. waaw ah, jël question tey ay que parce que day wax ne damaa dëgër bopp <laughs> tout le temps moom chaque jour mu ma da ngaa dëgër bopp dëgër bopp bi yëpp mooy des fois damay euh, peut-être ne du du comprendre ne li muy jàpp ni euh, euh, maa ngi ci di ko def fekk na am ñeneen ñu ma ko dénk moom nag toujours day bëgg affaire bi defaru ba baax dafa naan ma kaay woo ma laaj ma fekk te yoo Euh, bañ ko sonal moom mooy tax quoi mais quand même euh, lu may def rek moom daf may woo ne ma jaarale ko nii te su ma jaaree foofu aussi loolu laay gis nii parce que nag buy fàtt nag moom moo ma njëkk dugg ci côté art xëy na ay musique ay single ak yooyu man man maa ko si def mais côté art moom euh, fecc ballet théâtre ak ay taas yooyu yooyu la njëkkee woon waaye nag bi yàlla dogalee comme ma ni ma ko gën a sopp ma topp affaire def ay affaire xam nga après moom woo ko ci mais man gis naa ni lu ma def man kese su ma ci àndee ak moom double lay nekk waaw ah, des fois sax ma sànni ko xeer ne ko dama lay dimbali mu ne non non eh, man yow laay dimbali xam nga mais quand même complicité boobu noonu moo moo moo moo am solo surtout ñaar ñu bokk ndey ak baay tey euh, conférence presse bi xam nga naa ñëw man kese waaye moom def cee bokk. parce que mun naa ne lépp lu ma engagé maag moom ñoo koy defandoo mën nañu nag doorante nag boobu mu saf sàpp ci ci werante bi mais après dañuy mujjee euh, trouver benn terrain d'entente ànd ci liggéey bi mel noonu quoi. Mhm. waaw ma tont ma tontu foofu tuuti rek euh, pour ñu xam ko dem maa ko magee ñaari at parce que nit ñi dañuy foogoon moo mag dama ko bàyyee mag ji mais pour xuloo pareen saay sama yaay moom mooy sama yaay yaay mënoo génn sama diggante ak kii dañuy xuloo giita ngaas parce que li ma bëggul mooy moom peut-être ni may doxee ak moom ni muy doxee du benn moom dafay bëgg rek garaawul kii wax na ma ma ne ko déedéet dem na kii wax lii nii man damay wax ni loo wax loolu nga war a def donc dafa xaw a day xaw a moom day bëgg a demal boppam dama ko wax noonu noonu il faut nga ñëw na di xalaat parce que dem moom lu mu a laaj léegi nga bañ ko ko jox mu bàyyi koog yow dem seeti leneen côté boobu lay demee te que le fait que noonu ñu di ko néewal doole nag ci yu bëree bëri yooyu lay bañ lu si bëri def ma koy nëbb moom léeg-léeg dama jékki dégg si moom dara du ko woo de sama rakk yi ñoo ma koy sàcc naa ko moo ko ne ko dem ba dégg naa kii léegi lii la la def waaye yow kii mu ne ma déedéet du noonu benn bu ko expliqué na ma ne ko non non aar bi il faut nga am caay-caay soo amul caay-caay dañ lay néewal doole te man nee naa leen sama rakk la ñoo bokk ndey ak baay ku ko néewal doole mën nga néewal doole kon man lu ma fekkee faj ko xanaa lu ma yëgul mbaa waxul waaye ku ko laal man mi ngay laal ah. bon musuma ko bàyyi xam nga des fois comme dañoo nekk ci senegal te des fois xëy na mënoo satisfaire ñëpp waaye da ngay xool les quatre-vingt-dix pour cent boo ci mënee fexe nga am fu ne nga am fa ñu lay bëggee nga def ko. parce que tey kii bu ko ak bu bëggee acoustique bi kii day bëgg traditionnel bi kii nag bëgg ambiance bi xew léegi léegi man nag ma boobu xëy na des fois da ngay naan peut-être ni que 6 mois yi wala 1 an bi bàyyil ma valoriser façon musique bii ma nekk. bu boo fa jógee nag ba gars yi bëggee foofu nga jóg dem feneen mais man sama particularité sax du mbalax 100 pour cent bi nii bon bon parce que biñ may xam ma ñu woon ci loolu nga xam ay kora ak yooyu te nag li gën a mën a daw sama yaram li may gën a mën a mën a déglu mooy neex mooy ay morceau yooyu morso ay kora ay Salif Keita ay Baba Maal ay yooyu xam nga ay morceau guinéen ak malien parce que moom bi ma nekkee Mali dama doon damay bambara damay woy ci làkk yu bari bari donc tey euh, bàyyiwuma loolu mbalax nag ñun ñoo ko moom mbalax ñun ñoo ko moom duma sànni xeer mbalax duma ko du ma ko duma ko duma ko duma ko du ko suufeel mais quand même lu bari dama naan nañu jël mbalax bi euh, transformé ko tuuti pour mën koo jaay pour wut leneen mais fa ma nekkoon nag mosuma faa jóge am naa chance nag ñu bari lu ñu amul ci waykat peut-être surtout génération bi ni nii mooy damay woy sama làkk muy pulaar fekk si la yow mii wolof ma fekk si la yow te pourtant yow mën ngaa am problème boobu yow mun ngaa mën nga ma bañ a fekk si fu ma nekk mais quand même sama culture maa ngi si ba tey mais day yoo xam ne nag da ngay dem ci beneen boor pour ko si am ñeneen ñu nekk ci boobu ci boor boobu. Mhm. tey euh, mhm. jàngat man gis naa ñu ngi dégg naa nag kaas yeeg sànni xeer ak yooyu mais man nee naa moment bi bi coow li am ay mars ak yooyu man maa ngi woon France. soo daa problème yooyu ñu ay miliciens yi génn nañu def nañu coalition ak yooyu fekkuma fi woon aw ma ci woon renseignement donc mënu ma ci woon dugg waaye dama ne tout le temps dama koy wax benn structure bu nekkee fii di jàppale les musiciens yi. fekkee li muy def pour musicien moo tax mais loolu daf ñu arrangé bu fekkoon da ko doon def ne musicien gis ñu seen bopp laa nga ne am problème man awma benn problème ak SODAV wala BSDA bon euh, dewuma fa euh, ci seen réunion et yaa ngi dégg waaye waaye dama ne ñu ma si jot a côtoyeel te nga xamante ni ci la ñu nekk waxtaan nañ sama gis naa ci sama njëriñ waaye nag BSDA chaque répartition damay dem ñi fay ma xaalis chaque année chaque chaque année ou chaque six mois ou quoi des fois maa bàyyi ba xaalis bi di gën a bari démb rek pende mu nga naan lu tax demagoo waa BCA ñu ñu lay laajte xam nga xam nga ma ne ko ok dinaa dem parce que moom xëy na am na yeneen mu fa doon lijjanti mais man ah, man ko fay ah dañ ko fay <laughs> ma démb mos naa <laughs> ah, mos na ok donc donc loolu xam nga tey mos naa man <laughs> woo sama yaay jox ko li di des ma bëgg cee saraxe mais mos naa xam nga donc ok donc BSDA baax na fi. Euh, SODAV ah Sodaaf moo fi nekk ah mais ba eh, non non non le problème du loolu xam nga man euh, euh, euh, wax na naa la bi mouvement wu Sodaaf bi di yëngu fii gars yi di kaas parce que man mën naa la wax limal benn par benn artistes yi defoon marche ñëpp yaa ngi dégg waaye man du ma man ay affaire du ma yóbbu ay noo def ni du ma yóbbu dégg mais nag bi ma demee nag ba côtoyé ñi fa nekk xool yenn bagages yi gis naa ne wax dëgg yàlla arrangé nañu man dembe gis yaa ngi dégg waaye Sodaaf waaye ba tey BSDA mu ngi may fay donc kan kay ah waaye yow boo doon am benn BSDA ah, asodaaf ñëw nga am ñaar kay sant yàlla si ñaar yi. non non léegi benn la. non ma ne. <laughs> tur bee gën a yomb rek moo tax ci liggéey bi ñu. ah non man de wax dëgg yàlla maa gis sama bopp. ci non gis euh, fay. <laughs> pour ñu nañ ma man ma amoo problème man naa mos ko tuuti rek. ok xam moo dafa encaissé moo tax mais am problème. <laughs> Ah,

mademoiselle le mot jeune talent boo ko di wax le talent n'est jamais jeune da nga naan talent révélé ou talent caché ok ok mhm. jeune artiste yi quoi waaw waaw waaw waaw d'accord ok euh, léegi sax damay damay xaw a brosse fii léegi léegi ñu périssé ma parce que am na ku ma woowoon ne ma allo Demba Guissé waaw damay invité jeune talent yi bëggoon na seeti ma ne ko du ma jeune talent <laughs> waaw mu ne ko du ma jeune talent dem xooli jën talent nga invité leen parce que pour man woowee ma sax jeune artiste en tant que jeune buy woy quoi mais quand même jeune talent moom peut mooy xale seen petit gàlle yi oh, oh, que aussi jeune talent man soo ma ko waxee man damay gis ni que ma tant que artiste quoi xam nga parce que aussi mënu ma nekk nag boobu ba tey 15 ans si si kii ba pare ma woowee ba tey jeune talent wax deel de dafay xaw dafay a doy waar mais quand euh, man aw ma problème mu ak ñëpp artistes si ngay wax nii yëpp Euh, bon du ma wax sax tey rakk dama naan ñëpp samay xarit lañu ah parce que euh, ñoo bokk aar bi aw ma ak kenn xaar ma yàlla man artiste fu ñu dajaloo man maa nekk seen comédien parce que man maa li daaneel ñoom ñëpp ah dafa euh, moo xam ne sa léegi man ñëpp ku ma ci dugg sa kër bon damay damay dafay mel mag yow ñu bokk ndey ak baay mais nag loolu ça n'a rien ak am jot ak ak ak ñàkk dem xëy na boo amee seetlu Assane Ndiaye bokk na ci artistes yi gën a lëlu du ñu dem fen du ñu dem yaa ngi dégg xam na lu mu ci dégg du jàmm la ci gis man nag awma ak benn problème ku ma woo daal bu ma amee jot ma ñëw su ma amul jot nag xëy na ma bëgg ay nelaw rek nelaw waaye du dara. <laughs> waaw tournée régional rek dafay dépendre rek ci comme comme lee lañu ñu woon. xëy na déwén ak ci at mu bees mi dinañu dem ci région yi nag doon naa fa dem nag mais du woon tournée quoi dama naan dem ci dëkk bi su ma fa jógee dem de beneen dëkk bi mais je pense que bokk na ci suñu projet et ñu ngi ci aussi. ma leeralaat ko ah. ok euh, 2018 la génn décembre 2018 ah pour pour ah pour ci gàttal rek. j'ai fait 15 ans de carrière ci sama musique ma ni album bi may génne bëgg naa mu egg ci 15 millions d'habitants yi Sénégal am muy ñaari muy muy ñaari quinze ma ni album bi may génnee mu war a nekk quinze euh, euh, mu mu war a dem ci 15 millions d'habitants yi war naa ko mën a def 15 titres donc bu jëlee 15 ans de carrière 15 millions d'habitants ak 15 titres moo tax mu tudd ko 15 étage ok.

donc comme ñam nañ ko tey xamuñu woon ne bu ñu touché foofu dina neex donc après bon euh, ñu ngi préparé yeneen moom d'ailleurs mu ngi préparé loo xam te moom spécialement la xam nga mais quand ñu ngi waajalaat ba chaque euh, temps rek ñi génnee man ak moom loo xamante ni que sénégalais dinañ ko kii quoi. donc on prend

man ko garant lan nga bëggoon mu ne noonu nga tuddee woon kilifa bi ma àndal rek man ko xam ne na ngay def léegi daal nga fay saal bi jënd bi yëpp fay lépp li nga xam moom la ñu war a fay bu ko defee ñu tuddee ko moom kese li waral ñu tuddee lu bare bare bare mooy que tey su ma tuddee tey am na loo ma jàppalee keneen jàppale ma loolu la ñu dajale tey moo tax du ñu mën a bàyyi kenn képp ku tuddee rek bëgg nañ ci gis sa bopp parce que xa parce que génne dafa métti ki la accompagner sa xew wax dëgg yàlla mun tey bu ma sañoon tey ñu def comme rappeurs yi sa que yi amul eh maa ngi bëggee sama waa ji yooyu amul waaye nag ñun mënut a ñàkk teg bul fàtte ñun ay xale lañu tey it ñu ñu mag ñoo ko jiitee di ko def di ko def di ko def xëy na Youssou Ndour position am na solo ba nga xamante ni tey même wooy la ñàkk laa wooy am na mu am ba pare ñu nag ñuy dimbali mooy ñu war a jàppale ci encore ñu gën a yaatal suñu liggéey bu ñu jàppale ñu am aussi que lu mag ñi am donc loolu mënta ñàkk parce que loolu lañ ci fekk suñuy papa di ko def suñu yaay di ko def donc euh, mënta ñàkk loolu. non fan si yéen dañuy comprendre parce que xam nañ ni que keneen ku ñu ñëwoon ci programme am foofu rek loolu lañ fa gisoon bu ñëwee tamit encore loolu parce que boo ku def sa way da nga koy ba mu jeex doo ci way ma sàmba doo ci way ma demb waaye nag ki lay may aussi mënuloo def dara lu dul aussi nga dem delloo ko euh, njukkal ci loolu nga way ko ci mu xam ne sax yow yëg nga ko day dégg waaye nag ku sañoon mën ngaa woy sa woy ba mu jeex doo woy kenn parce que di woy di woy di woy dajale ay woy mën naa yàq sax peut li ñu soxla woon parce que mën naa woy Massamba yow xamuloo ko mais woy wa yàgg trop ba nga jóg dem mais quand même comprendre ne te xam ne que ñun li ñu taxawoon jóg mooy que ñëpp dajaloo ñëw ñu woyal leen waaye nag mun loo daje ñëpp pare ci la jàppale toog nii indi teraangam pour jàppale la même boo ko remercier wul nga woy ko tuuti mu gis ci boppam bu ëllëgee boo wootee mu jàppale war la parce que aussi nag bu foofu lañ toll léegi sénégalais moom mayitul muuma duñu may muuma loo xaritoo xaritoo ak ñoom ngay waykat non da ngay tëgg bés nag nga woo leen ñu jàkkaarloo ak yow loolooy dëgg léegi nag baatirekat yi ñoo yàq yow li nga laaj du loolu baatirekat yi nga yor ca 3500 def ko téeméer téeméer ñëw taxaw di joxe par benn pour way ma gudd du dëgg mais nag ñàkk a way li ñuy organiser dem ba amul kenn ku ne ci ginnaawam kenn jàppalewu ko amul labet amul dara amul benn fond bu ko jàppale moom mooy dajale dajale dajale dajale dajale dajale ba am daraam dem Sorano ku ne xam na ne kenn dafa dugg di woyte yoroo dara léegi nag boo tuddeewul ay cinq personnes du la sénégalais mayitul muuma tant que projecteur tàkkul du ñu ñëw looloo tax nag ngay bàkk ñu bëri ah dañoo xam ne dëgg dëgg neexul. nee ko doom sax. ba pare moom topp ma sax moom bu ma toppoon barke El dina gën a nooy ci moom. non Pendo ne ko teg ci teg ci ni sa sa xewu biir kër sax. waaw da gis ndeyeel yi. man fu ma njëkk lii man feebar dama koy tuddee ay nit. su ma feebaree dara naqari ma ma tuddee ko nit woo ko ci sama estati laa koy dugal ni sama feebar bi nag naa ngi ni hôpital mais tuddee naa ko diw ak diw. tuddee leen ko ñu dimbali ma di saa si dañuy ñëw sénégalais maytul muuma te ñun ay ñeeño lañu ah déedéet dañuy wayaan de. dañoo xaw a wuute ñoo bokk ndey ak baay mais moom moom day dóoraale. wala maa ngi nettali benn affaire ma nettali leen benn dama ko mos a mu toog néegam rek yor gitaar. woy ay woy yu ma ni ko dem te ngaa teg lii demul fii de tegal lii te mbalax ko mu dem billaahi gis nga fi nga ko teg nii billaahi doom ko la dimbali démba dee ko mbalax yii ngay dem ni nit ñi dégluwuñ la dañuy nelaw woyal mbalax na sax démba di retaan su ma ko def di ree loolu may leen ba ma ne sama papa kii nuruwul ak man man damay dóor parce que loolu la ñu fi tax a teg kat kenn mayetul moom ah. non mais macha allah ce fut euh, voilà un euh, très grand parce que macha allah li fi feeñ dafa bari. donc tey gis ngeen complicité bi ñuy wax dëgg la parce que ni ñu mel seen kër loolu la ñu wane fii. ñëw ñu ba fii caméra yi tim ñu ñëw fii di door la classe cest à ni ñuy yebantee ni ñuy tooñantee loolu la ñu indiwaat fii. donc loolu ça veut ça veut tout dire parce que ça musicalement sensibilité boobu ñoom ñu nekkee ba morceau bi dox. incha allah bu yàlla defee album boobu ñu bëgg def dina melaat noonu parce que musique sensibilité la te wane nañ ko fi dem ba aussi gis ngeen bon numéro am bii te yéen ñëpp defe naa ne du genre nit boobu ñu naan dafa manqué de respect xanaa tardé wala koy mere moom ngeen koy tardé mais dem ba naturellement yéen ñi ko xam ñëpp kenn xamee ko ci nit ku nekk ñu am ku réew wala nit ku otin moo genre nit yooyu nga xam ne bu ñu ñëwee fii dañuy jaay la star tey ni mu mel rek noonu la noonu lay wane man je le connais depuis presque léegi mu def 10 ans wala yoo xam ne ci laa ko xam quoi commencé ko xam peut-être bi ñu commencé liggéey jegante c'est depuis ma ak Yoro 4 ans 5 ans ci lañ commencé jegante mais dem bi moo xamee war ma 10 ans nii laa ko mës xamee mënul am problème ak jeune génération pour rassurer yéen ñëpp peut-être que li lay wan ne ñëwul foofu mooy moom mi ngi liggéey parce que bu defuloon dara mënul tegle autant de week-end ay nit di jouer moom nit boo buggee musique mënoo toog sa kër instant bi nit ñi di jouer surtout samedi c'est pas très évident surtout si jeune yoro man moom laay liggéey loolu ci ñi ma gën a xam ci artiste ma laay liggéey yoro bu dem fenn cest à bu jouer wut këram lay nekk mais c'est plus de son âge di wër di wëndeelu yoro il a déjà eu à faire beaucoup de choses nekkatul kii même boo toogee moom di wax moom sax moom il est plus dans ses trucs rêveurs il fait sa musique il reste cool mais tey fu fu kenn di jouer nekk

dinañ ci yokkaat ay surprise comme ni ma leen waxee surprise yoo xam ne mënuñu ko wax et normal parce que am na yoo xam ne boo ko waxee ba pare ñu relayer ko nit ñi dañuy toog sax di ko xaar dootul am tuuti dootul am suspense boobu ñuy xaar mais j'espère juste que vous serez satisfait à la hauteur de suspense bi mu leen créel ci jour bi on remercie tout le monde di remercier le grand moom mi nga xam ne moom moo ñu moom moo ñu may autoriser yi ñu toog à sa place parce que moo ci waroon nekk mais moom dafa tamit dafa ñemee dénkaane mais grand après yow yaa toog donc merci à vous je pense que comme non comme waxoon nañ question yi je pense que jeex na dem dafa généreux gis na mi ngi laaj ndax amatul kenn amatul question mais je pense que baax na quoi je pense que gars yi ils sont satisfaits on espère que la rencontre prochaine